rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashraf anbiyaa mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi ajmain mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaar di leen ndokkeel ci barab bu tedd bii ñu nekk waaye jamono yu tedd yi nga xam ne moom la ñuy dund di ñaan suñu boroom ni ñu ci duggee ci bismillah ñu génne ci noonu ci alhamdulillah lépp lu ñu ci def suñu borom fulal ñu ko làqal ñu ko fi yàq àggul di nuyu bu baax a baax ci sama tur di ko jaarale ci kilifa yi fi toog yépp jóge ba Touba di représenté daayiratu Muxaddamatul Xidma te yaakaar naa bu ma ci tuddee kilifa gi ma dendal war a seq ak moom jotaay bi te mooy Serigne Muxtar di représenté lu am solo ci daayira ba muy commission euh, organisation waaye ma ci tuddaale tamit sëriñ Abdou bu so mi nga xam ne moom moo jiite commission culturelle ba ca daayira ba te tamit fii ci jotaay bi ànd ak ñun dana doy sëkk ni ki noonu it ma ci tuddee sëriñ Abdul Xaadir Ñang mi nga xam ne moom it mi ngi ci jotaay bi bokk ci ña ñànk commission sociale ba moom it yaakaar naa bu ñu jaarlee ci ñooñu suñuy nuyoo ak suñuy ziar jëmale ko ci waa dëkk bi yépp di ko rombale ci euh, daayira bu mag bi wala mu assasa bu mag bi di mu assasatul Wafa yaakaar naa ni dana nekk ay nuyoo yu jot dana nekk ay ziar yu jot sëriñ bi ni nga ko waxee dañoo bëgg a waxtaane ci tombub ahkaamul janaazati wa ziyaaratul xubuur muy ay àtte yu aju ci am tàdd wala boog ku fi ku yàlla moom bakkanam ku fi yàlla jële ku faatu ak lenn ci ay àtte yoo xam ne dafay aju ci ziyaare ay bàmmeel ci biir loolu bala ñoo dugg ci waxtaan wi rek danañ fàttali ne doomu aadama bu buy dund orma ji muy am orma jooju mooy continuer di wéy ak moom ba ni muy faatoo loolu la fuqahaa yi di wax naan xurmatul mayiti ka xurmatil xay loolu nag dana feeñ fu baree baree bari dana feeñ ci niñ ko war a taxawoo buy sukuraat dana feeñ ci ko war a taxawoo buñ demee bam leer nañu ne faatu na dana feeñ ci niñ ko war a gaaw taxawoo saytu ko ci bu faatoo ba noppi waaye dana feeñ ci ay atte yu baree bari yoo xam ne danañ ko gis ci biir waxtaan wi looloo tax képp koo xam ne yàlla teg na ci sa loxo nga war a saytu toppatoo koo xam ne yàlla moom na ko nga war a làmboo ak i teggin bañ a xëtt war ma jooju ci benn anam ñu xam ne it ku yàlla faat bakkanam ku daan dund ba mu yàgg mu faatu teraanga gënta rëy ci moom ñu gaaw waajal ko denc ko sutural ko lu may comme ni ko boroom xam-xam yi waxe dafa faatu faatu gu bette lu mel ni mu am crise cardiaque wala yu mel noonu ci yenn wopp yi nga xam ne bu daanee leen kii rek mën naa faatu bu boobaa dañuy wax ne kenn du ko gaaw a denc kenn du ko gaaw waajal waaye dañuy bàyyi seet néganiku ba xool jéem a xam ndax faatu na ci dëgg-dëgg wala boog ndax am na ak passé amaat na occasion ci mën a dund loolu moo tax ñu ne képp koo xam ne dafa faatu faatu gu bette moom kenn du ko gaaw a waajal waaye mën nañ koo xaare ñaari fan ba ñetti fan lu may dañoo dem ba xam ne day waaj a soppiku kon nit bu faat bu faatoo bu ñu leeree ne faatu na nañu gaaw denc ko nañu gaaw suturaal ko nañu gaaw waajal ko waaye buñ ca amee luñ ca nattable wala luñ ca bëgg a xool nañu ca def ndànk nañ ca teey ba xool lañ ca nattable lu mu waaye it xool lañ cay vérifier ba xam la ca suñ njortu euh, wane noona la demee wala am na leneen lu ca am ñu xam ne it àqale ci ab jullit joo xam ne amel na ko moroomu jullitam ñeenti yëf yii mooy bu faatoo mu waajal ko loolu la ñuy wax sang sang ko te mooy suturaal ko jullee ko denc ko ñeent yi ay àq la yoo xam ne jullit bu ne da ko yoreel moroomu jullitam loolu moo tax waxtaane bunt bi xamle àtte yi nga xam ne moo ci aju ci képp koo xam ne yàlla dafa dogal ngay waajal ku faatu am solo lool waaye it ñu bàyyi xel ni képp koo xam ne dangaa taxaw ne da ngay waajal ku faatu war ngaa nekk ku sàmm war ngaa nekk ku am diine war ngaa nekk kuñ wóolu ci ay jukko war ngaa nekk ku xam atte yi nga xam ne moo aju ci bunt bi war ngaa man sa mbécce ndax kii nga xam ne moom nga tiim di ko waajal xamal ne lii mooy sa digganteek moom bi mujj ci kaw àdduna moo tax dangay xool rek na nga xam ne yaakaar nga ne boo demoon ba làqu noonu nga bëgg ku la ko taxawoo boobaa nga taxawoo ko moom ñoo nii ñu xam na it ni ko borom xam-xam yi waxee suturaal ku faatu ak ñoŋal ko sàmm ko àq yi la joo xam ne yàlla du koo teg ci ndodd ñëpp moo tax boo demee ci téere fiq yi dañu lay wax ni la ni ñuy waajale ku faatu ca sang ga ak parfum ba lokkalañ ga ak euh, gàddu gaag suul gaag euh, wattu ga bu fekkente ne dañ koo soxla yooyu moom la ñuy jiital ci àq yi yi war a génn ci alalam yëpp bépp àq boo xam ne dafa gàllu ci aw loosam loolu lañ ci war a njëkk a génnee ci alal bu fi faatu woon bàyyi fi ay boro waaye ñu war koo taxaw ci wàll googu te ëmul ku ko mën a ku ko mën a féete loolu la ñuy njëkk a génnee ci alalam kon loolu dafa lay wan ne lii priorité la lu jàmp la loo xam ne dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax ñu wax ne waajtaay woowu bu fekkente ne moom ëmu ko dañuy xool rek ku gën a jege lislaam gàll ko ko ku gën a jege ci askan te mooy baayam bu fekkente ne baayam mi ngi dund wala doomam bu fekkente ne koo xam ne nag amut ci yooyu benn ñu ne kon nañ ko gàll baytu bu fekkee baytu maal amut ñu ne jullit ñëpp kon la war waaye nag bu ñu ne jullit ñëpp la war day nekk waru kifaaya nga xam ne bu ko ca ñenn taxawee rek mu wàcc ñi ci des ñëpp ñu xam ne bunt bi yi nga xam ne moom lañuy ñuy waaj a nafar muy buntu waajal ku fi jóge euh, li tax lislaam teg ko maanaam mi dëgg-dëgg chance bi dëgg-dëgg mooy mooy sàmmal nit ki war maam nañ ko ko sàmmale nam ko sàmmale woon boppam ñu sàmmale ko ko noonu ba muy dund bu faatoo yit ñu sàmmalaat ko ko noonu yi waaye it ngir waajal bokk na ci li tax ñuy waajal euh, ku faatu ak di ko toppatoo mooy ngir teral malaayka yi nga xam ne ñoo war a taseeg moom ñoo ko war a recevoir bu boobaa nag képp koo xam ne kon ab jullit nga am war a am taxawaay yi war ngaa bàyyi xel ci yi ma wax yi yépp fi ñuy njëkk a doore nag waxtaan wi mooy koo xam ne njort nañ ne yàlla nga koy bëgg a moom kuy sukuraat nuñ koy taxawoo bi ci njëkk mooy kuñ dem ba yaakaar ne mi ngi sukkuraat mi ngi waaj a wuy ju boroomam la ca jiitu jéegu jéegu ba ca jiitu mooy nañ ko wét li te rafet ci moom njort képp koo xam ne gis nañ ay màndarga faatu di waaj a ñëw ci moom nañ rafet ci moom njort nañ yaakaar ne yàlla yërmaaneem gën naa yaatu di ko fi jële te fekk ab digam ñëwagut nañu am yaakaar ci ne mën naa wéraat ndax dañuy wax ne nit ki bu fekkente ne dafa nekk ci xaalatu sixa dafa wér la gën moom muy notal ak ragal jàpp ne bu xëyee mën naa bañ a gont bu gontee mën naa bañ a fanaan waaye saa yu nekkee tawat ju metti nag la gën mooy mu notal ar raja yaakaar ne yàlla moom dara tëwu ko te it noonu lay noonu lay demee kon képp koo xam ne fekk nga kuy waaj faatu rafetalal sa njort bul jàpp ne rek tey la fii yem wala lépp tey lay jeex ñaareel bi wax nañ ne ku fekkee kuy waaj a faatu bokk na ca lañ taamu ci moom mooy mu sakoo ñaari baati seede yi te mooy laa ilaha illallah muhammadun rasulullah yonent bi sallallahu waxoon na ne dee leen sax seeni néew laa ilaha illallah daan ne képp koo xam ne la mujj génn ci làmmiñam mooy baatu laa ilaha illallah dafay daal di dugg àjjana nañ ko koy sawee nag mooy duñ ko ci jat dañuy wax rek ci wetam bu ñu toogee ba mu yàgg ñu waxaat bu mu toogee ba mu yàgg ñu waxaat duñ ko wax it mukk ne ko waxal nàngam déedéet ndax buñ ko waxee lu mel noonu làmmiñam mën naa rëcc la wax laneen bakkanam daat fay yam wala iyaasu billah te loola du nekk lu gën ki nga xam ne mooy taxaw di ko sa baati seede yi nañ ci mu bañ a tàyyeel bañ a lu mu yàgg-yàgg nay baamu par ndànk-ndànk rek bu demee ba mënatu ko nu wut ku ko wutu koo xam ne bu sonnee mu aw ko ci wax jooju loolu mooy ñaareel bi ñetteel bi mooy bëgg nañ ku fekkee ku faatu nga fexe ba barab ba laab jëmm ja laab mooy bu ko jigéen ju am ngànt jege bu ko ko am jana ba jege bu ko xale buy fo jege waaye it moom bum taq sobe bum laal lu taq sobe kon na ay yéreem laab na yaramam laab képp ku teew ca barab ba it na laab ndax comme ni ma ko waxoon léegi fii barab la boo xam ne dañ fiy teeru malaayka yi malaayka yi dañ fiy teew te xam nañ du teew fu fu laabut ñeenteel bi mooy nañu ko laalal gëtt moom mi nga xam ne mu ngi sukuraat yàlla nga koy waaja moom dañu bëgg ci kuy sukuraat bu ko manee ñu laalal ko gëtt ngir terale ko malaayka yi nga xam ne ñoo jël si ruuxam juróomeel bi mooy bëgg nañ képp ku teew yutaay ba nga koy ñaanal ñaan gu bari képp ku teew nay ñaan waaye nag booy ñaan del ñaan di wax ndànk na ànd ak ak wegu ndax dañu wax ne barab boobu malaayka yi dañ koy fekkee te loo ñaan rek dañ lay aw waxan waxandoo amiin kon moo tax képp ku fekkee kuy faatu del faral di ñaan lu baree bari wax nañ ne barab bii dafa bokk ci barab yi nga xam ne dañ fi nangoo ñaan am na boroom xam-xam yu wax ne mënees na ko jàngal surtu yaasin am ñu wax ne déedéet nañ am ci ñaan gi rek ala li xaal loolu ak wuute la goo xam ne ca dëgg-dëgg li am solo rek mooy nañ ko ñaanal Euh, bokk na ci teggi ni fekke ku yàlla di moom bakkanam nga bañ a jooy ca kanamam ba mu koy gis kon képp ku ko jege bu mu jooy di yëkkati kàddoom ba mu koy yëg baa mu koy gis ku ca jooy it baa mu yëkkati kàddoom nañ gaaw ber ko génne ko barab ba kay sukuraat nekk ndax dañu bañ mu tiitloo ko dañuy bañ mu dégg ko bu ko defee bakkanam daat fay yem te fekk xay na mënoon naa am yeneen occasion bëgg nañ it képp kuy fekkee ku faatu mu nekk ku dëgër ku mën a muñ koo xam ne yii yëpp du ko gaaw a dal du gaaw a afale du gaaw a jaaxle du gaaw a jooy du gaaw a saalit moo tax dañuy wax ne jigéen la gën mooy barab yu mel noonu ak jamono yu mel noonu bañ ko teewee ndax ñoom leen yàlla bindee xëy na seen xol dafa gaaw a fees ba lu baree bari ci li góor mën a ñoom mënuñ koo ndékku moo tax yu mel nii nañ leen koy sorole kon loolu ay teggin la yoo xam ne taamu nañ ko ci képp koo xam ne yàlla mu ngi moom bakkanam bu ñu demee nag ba mu dog ba mu leer nañu ne tàqalikoo na ak dund gi bokk na ci teggi ñi ñuy sàmmante foofu yi ñu bëgg ñu def ko bokk na ci lañ ca mooy nañ gëmmal ay bëtam ki koy gëmmal it na wax bismillah ala sunnati rasulillah ndax dañuy wax ne boo bàyyee ñaari bët yi muy xoole noonu loolu aw melokaanam day ñaaw tey nag boo ko bàyyee ba mu sedd mën ngaa dem bëgg koo gëmmalaat mu mu du du mu du àntu moo tax dañuy bëgg fu mu dogee rek nga jël sa loxo laal jaarale ko ci ay bëtam bu ko defee mu daal di gëmm waaye nag loolu bala nga koo def day fekk mu leer nañ la faatu na ndax dañu bañ nga koy teel a defal fekk faatoogut bu ko defee lool mën na koo tiital mën na koo jaaxal ba mu jaare ca faatu bu yàlla dogalee ni mu faatoo it ay ay ay ay gimiñam daal di yooru ba nga xam ne boo ko gis da ngay da da ngay xam ne dafa ŋa boobaa dañuy bëgg nga jël lu mel ne aw sagar wala morso da koy takk ci sikkin bi jàppale ko ca bopp ba loolu ndax dañuy bëgg dañuy bañ boo ko bàyyee noonu rek mën naa continuer nga te loolu mën naa indi yeneen yeneen jafe-jafe mën naa ñaawal ab gis-gis yi ñu wax ay tenqo it mooy cër yi nga xam ne mën naa tàlli ak a lemu bu demee ba dog nga lem ko tàllalaat ko lu mel ni xasab bi ak përëg bi nga lem ko tàllalaat ko lu mel ni ñaari pooj yi nga ta nga lem ko ba ci biir bi moom it tàllalaat ko ndànk lu mel ni yeel bi ak pooj bi moom it nga nga lem ko tàllalaat ko mooy daal noddanti ko ba nga xam ne ku ko gis day da ko gis ci melokaan wu rafet bu loolu lépp jàllee nag boo tàllalee cër yi ba noppi nga jël ko teg ko ci ku fu kawee lu mel ne ab lal bu ko tëral ci suuf teg ko fu kawe wutal lu jot mbalaan mu jot nga suturaal ko ko ba nga xam ne daraam du feeñ waaw boo ko fekkoon mu sol ay yére da ngay wutaat meneen mbalaan mu rëy mu yaatu sànge ko ko ba nga xam ne daraam du feeñ bu ko defee nag nga jël lu xaw a diis tuuti teg ko ci kaw biir bi lu mel ne benn weñ wala benn xeer wala ban wala yu mel noonu ndax lool liñ ciy daw rek dañuy bañ bu demee ba sedd guyu biir bi daal di walu moo tax dañuy bëgg ki dog rek ki dog ki nga xam ne bakkanam dog na ñu jël dara lu xaw a diis te ko ci biir bi ba débordement du am dagan na nag fii bu ñu demee ba mu leer nañu dog na bañ def yii yépp képp koo xam ne dangaa am ak moom ak mbokk wala nga bëgg koo gis man nga koo muri gis ko bu ko sa euh, bakkan àttanee bu ko sa kàttan àttanee mën nga koo fóon it loolu dara nekku ci ndax wax nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fóon na Usmaan ibn Mas'uun gannaaw bu mu faatoo niki noonu Abu Bakar gannaaw bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dogee fóon na ko euh, bu ñu demee bam leer nañu ne faatu na it bokk na ci yi araam mooy di dëjjatiku wala di yuuxu wala di pes sa bopp wala di xar say say yére di ko xotti ndax yooyu yëpp day wane ne li yàlla gërëm loo yow neexu la li yàlla bëgg neexu la waaye nag ku ci man di yuuxu ak ku ci man di saalitit moom dañuy wax ne loolu yoonu néew bi nekk ci lu may ne da koo dénkaani woon bu fekkee dafa dénkaani woon ne bu ma faatoo nañ ma jooy wala bu ma faatoo ku ma jooy sama yoon néew ci nga xam ne jël ci yenn responsabilité bu boobaam dañuy wax ni ku ko jooy baa nga yuuxu ko danañ ko ci mbugal bu lii lépp jàllee nag ñu waajal ko kon kenn du ko bàyyi ci kër gi muur ko waaye dañu koy waajal ndax bu ñu ko bàyyee muuru mën naa day day gën a jeqi ay njàqare day gën a dëgër ay njàqare day gën a yokk ak jaaxle day tax it euh, worma ji ji ji ji ñu war a séentu ci ku faatu worma jooju daf koy daal di ñàkk mën na koo yóbbu it mu soppi ko moo tax dañu bëgg ku faatoo rek ca sanseñ ñu génne ko këram yóbbu ko ca fañ koy waajale yonent bi sallallahu alayhi doon na wax naan dee leen gaawe seeni néew ndax bu fekkee jàmm la fa war a fekk mooy gaaw ngeen gaaw gaaw ngeen ko may jàmm bu fekkee aw ay la fa nar fekk mooy gaaw ngeen koo génne ci seen bopp asri'u bi janaa'izikum fa in kaana xayran ajjaltumuuhu ilayhi wa in kaana charran alqaytumuuhu an awaatiqikum am beneen riwaaya bu wax an zuhurikum daana wax ne moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ab néew bu ñu ko tegee ci kaw lal bi di ko waajali day wax naan gaawe leen ma gaawe leen ma kon loolu dafay wane ne kon teraanga ji ki faatu am la ci gën a gaaw mooy ñu gaaw waajal ko waajal googu nag am na juróomi mbir yu ci tënku muy sang gi ak sang gi ak jullee gi ak gàddu gi gunge gi ak suul gi yépp fardu kifaaya la ñu njëkkee ci sang gi sang gi ak jaamu yàlla la gu mag di fardu kifaaya niñ koy defee mooy ni ñi sangoo ba rek waaye li leen wutale mook ba moom mooy dañuy bëgg nga koy def di ko defaat day tóon mën na nekk ñett wala juróom wala yu mel noonu jële nañ ci xadis ci xadis umu ataya mu wax naan yonent bi sallallahu alayhi bi doomam bu jigéen bi faatoo dafa ñëw ne sang leen ko ñetti yoon baa juróomi yoon wala lu ko ëpp foofu dañ ci dégg ne kon kuy waajal am néew dañuy bëgg euh, mu waajale ko ci ay cangaay yoo xam ne day tool ñett jëm kaw daan leen bu ngeen demee ba ci cangaay la mujj la na ngeen ci def lokkolañ na ngeen ci def parfon bu ngeen noppee nag ngeen yégal ma ko ni ñuy sange ku faatu ab néew mooy liñ ci war a gën a njëkk a xam rek mooy la cee farata mooy fexe ba yaram yépp tooy ak ndox ak noo ko mën a defe rek baax na boo fexe ba yaram yépp tooy ak ndox daal nga bomb fépp jàppal ne sang nga néew bi waaye nag la cee sunna mooy nga toftale ko defe ko ni ko boroom xam-xam yi jàngale te loolu mooy nii mooy da ngay jël néew bi teg ko ci barab bu kawe ndax loolu mooy tax nga gën ko mën a jekku bu ko defee daal di suturaal awraam mooy li tàmbalee jumbu xam ba ci bëti wóomam ba noppi daal di soog a futti yére yi fekk na nga waajal ndox mi ba noppi bu ko defee fi ngay tàmbalee booy sang mooy da ngay njëkk a nal biir bi ndànk ndànk ndax loolu dana tax lu yomb a génn rek mën na dana dana dana génn dana tax doo bàyyi ba waajal ba noppi dara di génnaat ci moom kon dangay ngay naan biir bi ndànk euh, bu yàlla dogaloon nga sang ko ba génnaat wala nga jàppal ko ba noppi sobe génnaat du tax nga jàppalaat ko wala nga sangaat ko waaye boobaa dangay ngay raxas fa sobe sa nekk rek kon bu nalee biir bi ba noppi da koy raxasal loxo yi ñetti yoon daal di dem ca awra ja raxas ko muy diggante euh, jumbux bi ak bëti woom yi li féete kanam ak li féete ginnaaw yëpp da koy raxas ba mu set bu koy raxasit dañuy bëgg moom mi koy sang mu wut lu mel ne ay kawas wala ay gan wala daal loo xam ne da koy muure loxoom nga xam ne loolu mooy jonjoog euh, sobe si nga xam ne moom lay raxas buy raxas foofu it na bari lu muy sotti ndox mi bu baax a baax na ko raxas ba mu set wicc bu ko defee mën na caa laal saabu wala ndéem wala yu mel noonu bu noppee jàppal ko njàppum benn benn waaye bu àggee ci buy raxas gémmiñ gi ak bakkan bi day sëggal day sëggal bopp bi tuuti da koy wengal bu ko defee mooy tax ndox mi mu ko mu mu dugaloon ci gémmiñ gi mën a tuuruwaat waaye ndox mi mu dugaloon ci bakkan bi it mën a tuuruwaat bu noppee mu daa mu tëddee wetu ndeyjoor bu ko defee mu raxasal ko wetu càmmoñ gi da koy njëkk a euh, tëddal wetu càmmoñ raxasal ko wetu ndeyjoor gi bu noppee tëddal ko wetu ndeyjoor raxasal ko wetu càmmoñ gi daal di tàmbali nag fa bopp ba ba ca ba ndëggu ya ba ca tànkee lii mooy ah, cang gu njëkk gi bu la neexoon sax yii yëpp mën na la ca bañ a fekk mën ngaa ñëw rek raxas li tàmbalee ci jumbux bi ba ci bëti woom yi bu ko defee daat koy sang ba mu set ak saabu muy cangaay lu njëkk li cangaayul ñaareel li boo ñëwee daat koy jàppal jàppam benn benn daat koy sang ni ñuy sangoo janaaba ba mot sëkk kon bu dee cangaay lu njëkk li moom mooy am ndox ak saabu wala lu ko nuru bu dee cangaay lu ñaareel li moom ndoxum kese lay doon ndox moo xam ne dara soppiku ci ndoxum mutlaq lay doon moo xam ne du cafka gi du xet gi euh, du couleur bi amul lenn lu ci soppiku waaye cangaayul ñaareel li bu fekkee jàppaloon nga ko ci cangaay lu njëkki li du jar nga ko jàppal ci cangaayul ñaareel li boo noppee sang ko cangaayu ñetteel cangaayul ñetteel gi nag mooy am ay gët mooy am lokkalañ mooy am parfum mën nga ci def lu mel ni misk wala kaafuur wala yu mel noonu bu càngaat wut lu mel ni serviette ab sarbet wala lu mel ni sagar wala lu mel ni morso daat ko koy fompe ba mu set wicc bala nga koo dugal ci càngaay li ñoo xam ne it képp kuy taxawu ku faatu di ko sang doo dindi ci moom dañuy sip kon ngay dindi ci moom kawar di ko watal dara kawar gu mu mën a doon dafay araam bu dee jigéen sax moom loolu dafay araam ci moom dañuy sit ngay lelli ay wewam loo ca defoon it bu fekkente ne euh, suulaguñ ko dañ koy dugal ci càngaay la boo ko defee ñu daa ko koy suulaale bëgg nañu it kuy waajal ku faatu moom dong na fa nekk ak ki koy jàppale dañuy bañ nit di waajal ku faatu ñeneen di fa teew ñoo xam ne ñoom jàppale wuñ ko walla boog euh, dañu faa teew noonu rek di seetaan loolu dañ koy bañ bëgg nañu it képp kuy sang di waajal ku faatu ak ka koy jàppale ñoom ñëpp nañu nekk ay nit yi diine nañ nekk ñu am amaana nañ nekk ñu wóor ñoo xam ne lu ñu xam duñ ko nettali kenn ndax dañuy wax ne lii dafa sensible lool dafa doy waar lool ndax ki mën naa jékki-jékki ba mu yàgg mu gis néew bi soppi loolu mën na caa jaar njortu ne kii dafa texee di wala dafa norta texe te fekk na demewul noonu kon dañuy wax ne sàngkatu néew bu ne na bàyyi xel digganteem ak boroomam nag nekk ko am worma na nekk ku bari sutura lu mu gis ci lu baax loo xam ne day wane aw yiw mën na koo wax bu ko neexee waaye lu mu gis loo xam ne day wane ab safaan na ca noppi dañu bañit ku amee janaa ba di sang ab néew ndax dañuy wax ne moom toj mi nekk ci moom mën na koo dindi bu demoon sangu ji rek mu dañ ku amee mbërëg nag mooy bu dee jigéen moom sañ naa sang ab néew am na ci yoo xam ne nag bu amee dañ naan la cangir yi wàcc na la waaye danga koy tiimal rek bokk na ci mooy saa yu ñu demee ba amuñ ndox ndox buñ ko amut fenn wala ndox mi ñu am so ñu soxla ko ci lu gën farata boobaa duñu càng gi day wàcc dañ koy tiimal rek mu day sëg niki noonu bu ñu demoon ba yaram wi dagg yaram wi daggatoo def ay dog nga xam ne boo ko sangee yaram wi topp la boobaa du jar ñuy sang waaye dañ ko tiimal rek ni ki noonu bu fekkente ne boo sottee ci moom ndox mi yaram wi daf lay topp boobaa it du jar ñu sang waaye nañ ko tiimal rek ragg gi it noonu la demee ndax xam ngeen sang gi toujours day ànd ak ragg day ànd ak bomb waaye sax yoo xamee ne jàpp nga ne boo bombee rek am lu la topp ci yaram wi boobaa jarul ngay bomb waaye sottil ndox mi rek jàll ni ki noonu bu néew yi baree lool it ba nga xam ne xëy na boo bëggee bomb ku ne mu jël waxtu bu bari boobaa mën ngaa sotti ndox ci kenn ku ci rek bu defee mu daal di doy mukallaf mu góor nag saa yu ne mukallaf mu góor moo koy waajal mukallaf mu jigéen mukallaf mu jigéen moo koy waajal bu fekkente ne ki faatu day xale na ko góor waajal waaye bu fekkee góor amu fa jigéen mën na ko waajal li fii ak amut juróom-ñetti at kon xale bu góor boo xam ne amagul juróom-ñetti at juróomi at la yam wala juróom mbenn wala juróom-ñaar jëm juróom-ñett jigéen mën na ko waajal waaye bu xasee wees juróom-ñetti at rek jigéen du ko mën a waajalati li ki noonu xale bu jigéen li fii ak muy am ñetti at góor mën na koo waajal waaye bu xasee weesu ñetti at rek góor du ko mën a waajalati am na ci ñoo xam ne kenn du leen waajal kenn du leen sang bokk na ci ab yéefar kenn du ko sang ab shahid koo xam ne dafa daanu ca xare ba faatu wala mu jële ci xare ba wopp joo xam ne ba mu demee rek daal di faatu ca sens kooku kenn du ko sang kenn du ko jullee noonu lañ koy suule rek ak yërëm koo xam ne dafa ñàkk lu ëpp ceerub yaramam maanaam yaramam boo ko xaajoon ñetti xaaj dafa ñàkk li ëpp benn xaaj bi xëy na dafa dafa dafa accident accident bu metti wala yu mel noonu ku mel noonu kenn du ko sang kenn du ko jullee moom dañuy jël rek suul euh, waxoon nañ léegi ne bu fekkente ne yaram bi dafa dagg ba boo ko laalee mu topp la boobaa da koy tiimal waaye kii nag dafa koo ñàkk moom dafa ñàkk la ëpp ceeru yaramam boobaa deesu ko sang deesu ko jullee ndax comme niñ koy waxee rek dañ naan képp ko xam ne duñ ko sang deesu ko jullee loolu mooy qaayida bi képp koo xam ne deesu ko sang deesu ko jullee koo xam ne dafa génn ci biirub yaayam ëmb bu tuuru wala boog doom joo xam ne dafa ñëw ëndaaliwut bakkan moom it kenn du ko sang kenn du ko jullee dañ koy suturaal rek dañuy dem rek rob ko dañuy bëgg it boobaa ñu yóbbu ko ca armeel ya denc ko ca armeel ya fii ñu baree bare ci e, nit ñi da ngay gis ne dañ koy bëgg a rob ci kër yi bu ñu ko robee ci kër yi baax na waaye la gën mooy ñu rob ko ca armeel ya bu yàlla dogalee ñu dem bay waajal nit ka gën a yey ci waajal ko nag mooy bu dee góor te am soxna ka gën a yey ci waajal ko mooy soxnaam bu dee jigéen am borom këram ka gën a yey ci waajal ko mooy borom këram ñooñu nag saa yoo xamee ne amu ci kenn wala boog dañoo wàccoo seen àq ka gën a yey ci waajal ko mooy ka ko gën a jege ci wàllu geño ka ko gën a jege ci wàllu geño xam nañ ne soxna Fatima di doom yonent bi sallallahu alayhi boroom këram ali moo ko waajaloon niki noonu abou bakar bi mu fi jugee it soxnaam suñu wax asma bintu umays moo ko waajaloon waaw bu bu amul ñooñu ki ko gën a jege ci geño te mooy baayam teg ca doomam jigéen bu ñooñ ñëpp amut bu fekkente ni amut amut amut amut amut borom bu dee góor amut soxna masala amut ay mbokk na ko ab jàpp jàmbur waaj bu ab jàmbur amut jàmbur bu góor bu amut na ko jigéen ju ko jum araama denc waajal jigéen nit jigéen ju ko gën a jege na ko waajal bu ko amut jigéenu jàmbur bu ko amut góor gëm araama dencanteel waaye góor góor guy waajal jigéen ju ko araam wala jigéen juy waajal góor gu ko araam loolu saa yu ñu ba sës fa nga xam ne lii rek moo mën a am kenn ku ciy waajal sa moroom na suturaal yaramam yépp waaye tamit bu bu mu jël loxo boppam di ko bomb waaye na wut lu mel ni aw sagar jaarle ko ci ay loxoom. ku jigéen ki nag ak ki góor ki bu fekkente ne amuñ maxaram amuñ ku leen araam dañ naan góor ga bu fekkee jigéen comme nit daal faatu na jenn jigéen a fi nekk te buñ koy xool araamu la dañ naan kon nañ ko tiimal ba ci ay concoom bu doon jigéen nga xam ne moo faatu génn góor rekk a fi nekk ku ko mën a waajal te araamu ko dañ naan na ko tiimal ba ci ñaari tikki jaraam gannaaw bu ñu sangee néew bi fomp ko dañuy bëgg ñu daa koy sàng ja sansé ndax dañuy bañ sobee di génn di génnaat bu ko defee raxas gi di ci war càngaay loolu la cay doy rek mooy lu mën a suturaal yaram wi yëpp lu mën a suturaal yaram wi yëpp bu ñu amee daal càngaay loo xam ne daj na yaram yëpp nañ xam ne baax na lu ci yokk rek dañ ko sopp bëgg nañ nag góoru gune bu ñu koy sàng ñu sàng ko ci lu mat juróomi mbalaan jigéen ju bu ñu koy sàng ñu sàng ko ci lu mat juróom-ñaari mbalaan bu ci bu ci bu ci bu ci benn ëpp nag bu dee ku góor bu ñu ko ëppalee juróomi mbalaan ndax loolu dañu borom xam-xam ne dañuy wax ne ak yàq la bu dee jigéen bu ñu ko ëppalee juróom-ñaari mbalaan moom dañuy wax ne loolu ak yàq la ni ñuy sàngee ku góor ku faatu bu fekkee da koo bëgg sàng ci ñetti mbalaan danga koy wutal lu mel ni tubay ak lu mel ni mbubb lu mel ni tubéy moom ngay def ci diggante jumbux bi ak bati woom yi li féete suuf lu mel ni mbubb moom nga koy solal ci kaw gi boo ko defee nag wut beneen càngaay lu mag rek loo xam ne da koy lëmas ci yaram wi yëpp loolu mën naa nekk ñetti càngaay la bu neexee nga wut lu mel ni mbubb lu mel ni tubay ak kaala goo xam ne da koy langal day lang day lang ci kanam gi loolu it ñetti mbalaan la bu fekkee da ko bëgg a sàngee ci juróomi mbalaan te loolu moo ëpp lu muy am mooy gannaaw bi nga ko wutalee mbubb ak tubéy ak kaala muy ñett dangay wutaat beneen mbalaan mu mag daat ko koy sànge wutaat beneen bu gën a mag daat ko koy sàngewaat daa ko ci lëmasaat muy juróom bu dee jigéen nga bëgg a sàng ci juróom-ñaari mbalaan walla ci juróom da koy wutal lu mel ne ab sér ak lu mel ne mbubb ak lu mel ne mbusóor boo noppee nag daa koy lëmasaat ci beneen càngaay muy ñeent nga lëmasaat ko ci beneen bu gën a gudd gën a yaatu muy juróom bu fekkee ci juróom yi nga bëgg a yem bu fekkee da ngaa bëgg a dem juróom-ñaar nga lëmasaat ko ci yeneen ñaar yu gën a yaatu yi ko féete suuf muy juróom-ñaar kon noonu lañuy sàngi góor ak jigéen càngaay li nag dañ ci taamu na weex bu ma nee am moo gën na nekk koton loo xam ne diisut nañ ko lokk nañ ci def lokk lañ càngaay lu ne lëmas bu ne nañ ci na ànd ak kaafuur lokk lañ wala boog gët misk wala boog lu mën a doon rek xeetu parfum daal bu ñu noppee ci càngaay li dañuy bëgg bala nga koo sàng bala nga koo sàng sax boo ko sangee ba nopp dañuy bëgg nga jël lu mel ni wëttéen daaj ciy def lokko lañ daat koy taf ci ay buntu buntu yi ngay gis boo koy xool te loolu mooy ñaari bët yi ay buntu lañ bakkan bi bunt la ñaari nopp yu buntu la ak it fi muy gaanuwaaye bunt yooyu dañuy bëgg benn bu ci ne nga jël coton daa ko cee def daa ci def lokk lañ daa ko cee taf bala nga koo sàng ni ki doon barab yi muy sujoote it dañuy bëgg moom nga jël nga laal nga daa ci laal parfum nga daa ci laal lokk barab yi muy sujoote mooy jëwam ak ñaari tenqam ak ñaari bëti woomam ak ay cati baaraamam cati baaraami tànkam ni noonu it fépp foo xam ne dafa sensible ci yaramam it dañuy bëgg nga laal ca lokkalañ te mooy lu mel na ñaari poqtaanam wala biir bëti woomam wala biir paxu bakkanam ak gannaaw ay noppam fépp foo xam ne rek xet ba muy dund xet mën na fa génn dañuy bëgg nga laal ci parfum parfum yu bari yi nag dañuy wax ne xikma bi lenn rek la mooy dana tax néew bi bu ñu ko tegee ñu koy waajal di ko jullee wala ñu koy suul bu amoon xet xet gi du gaaw a egsi ci ñu koy taxaw loolu benn la ci ñaareel bi xet gu neex gi dana gën a mën a accueillir dana gën a mën a sawarloo malaayka yi nga xam ne ñoom ñoo koy teeru bëgg na it ku faatu ñu sàng ko ci yëre yim daan jaamoo yàlla te mooy lu mel ne lim daan jullee ajjuma wala yim daan armale wala yu mel noonu moo tax xëy na ngeen di gis fu mel ne barab yi ak barab yu nu mel ñaari nit bu faatoo ñu koy sàngaale ci yére boo xam ne daf cay demee woon daf cay armaloon bu sàng gi noppee la cay tege mooy jullee gi jullee néew moom it waajib maanaam farata la xam ne ñëpp lañ ko gàll waaye bu ko ñenn ñi defee mu wàcc ñi ci des mook sang gee yam ak sang gi ak suul gi bu ñu suuloon ab néew te julleewuñ ko dañ koy fekk ca kaw bàmmeel ba jullee ko fa yonent bi sallallahu alayhi xam nañ ne soxna sa daan buub jàkk ji ba mu laajee gisatu ko daa dem ba ca kaw bàmmeel ba jullee ko ci ni ki noonu it noonu la jullee woon Najaashi ba mu dee ca Éthiopie daa toog fi mu toog ne saxaaba yi sàppe la ñu sàppe mu taxaw jullee ko waxtu wi ñu mën a jullee néew mën nga ko jullee ci waxtu yépp ba mu des bu jant bi fenk ak bu jant bi so bu jant bi tàmbalee fenk te jeexagut wala mu tàmbalee so te jeexagut foofu moom dafay araam nga fi jullee am néew comme ni nga xamee ne noon lay araamee nga fi naafila ki noonu it bu fekkente ne jant bi day waaj a so baa muy waaj a fenk foofu moom dañuy sib ku fa jullee am néew moo tax xëy na ñi ñi taxaw ci gannaaw fajar wala ñi taxaw gannaaw takkusaan loolu war mat na di bàyyi xel bu baax a baax ne jant bi bu ñu demee ba muy waaja so dañuy sib ko fa jullee am néew bu tàmbalee so ba keroog muy jeex dafay araam niki noonu bu fee fajar la gannaaw fajar bu jant bi di waaj a fenk dañuy sib fa jullee néew bu tàmbalee fenk ba ni muy jeexee dafay araam ko fa jullee am néew araam googu nag dañu wax ne mooy bu fekkente ne amuñ am nañ pexe mooy xam nañ ne buñ ko fi bàyyee ba jant bi fenk ba jeex dara du sikk ci moom wala buñ ko fi bàyyee ba jant bi soo ba jeex dara sikk dara du sikk ci moom waaye bu fekkee amuñ ci pexe nga xam ne xam nañ ne buñ ko julleewul nii daar daar mu soppi ko kon boobaa waxtu wuñ ko mën a jullee rek baax na am na ci eh, bu ñu bu ñu bu ñu leeroon ne nag mën nañ ko fee bàyyi jant bi so ba noppi ñu soog koo jullee ñu lànk dem jullee ko fekk jant bi so dañuy wax ne boobaa julli gi dañ koy baamtu moo tax yooyu mën na di bàyyi xel bu baax a baax am na xeeti néew yoo xam ne kenn du leen jullee mooy ñi ma tuddoon ne kenn du leen sang kenn du leen jullee kuñ dud waajal duñ ko jullee ndax dañu fuqaha dañuy wax naan julli gi ak càngaay li dañoo taqoo ku ñu sang rek jullee la ku ñu sangut deesu la jullee kon nit bala nga koo jullee day am juróom benn charte ñeent yi weesu na waxoon naa ko ci càng gi mooy na nekk ab jullit ab yéefar kenn du ko sang kon kenn du ko jullee na tàkku na na juddu àndaale bakkan kon xale boo xam ne dafa juddu àndaalewul bakkan waxoon naa ne kenn du ko sang kon it kenn du ko jullee na bañ nekk shahid ku dee ca digg xare ba kon koo xam ne dafa dee ci digg xare ba kenn du ko sang waaye it kenn du ko jullee na bañ a ñàkk lu ëpp sulusu yaramam ceerub yaramam boo ko xaajee ñetti xaaj koo xam ne dafa ñàkk lu ëpp ñetteelu xaaju yaramam kenn du ko sang waaye kenn du ko jullee ñu dolli ci ñaar nag ñoo xam ne moom kenn du leen jullee mu ñoom it mooy koo xam ne dañ koo xas jullee ba noppi ku ñu xas jullee ba noppi moo xam fekke woon nga moo xam fekke fekke woo woon moo xam dañ ko jullee fi nga nekk moo xam dañ ko jullee faneen baneen dëkk kooku kenn du ko jullee waat ndax dañuy wax ne jullee gi benn jaamu yàlla la goo xam ne genn benn yoon lañ ñu ko sant bu ñu ko xasee def benn yoon wàcc nañu du jar ñu koy baam ku fi nekkut tamit koo xam leen ab dëkk wala dafa wala daal yéen ñaara bokku leen téewut teewut nga jàkkaarloog moom kooku sañoo ko jullee loolu la ñuy wax as-salaatu alal ghaib ku fi nekkut sañoo toog fi nga toog di ko jullee ñu bari dañ lay bëgg wax ne dagan na ndax yonent bi sallallahu def na ko ci Najaashi waaye dañuy wax ne loolu masala xusuusiya la maanaam diggante yonent bi la woon ak Najaashi fa la yam kenn sañ cee xiyaas kenn sañ cee xiyaas ndax dañoo wax ne Najaashi fam faatoo ca Xabasha dafa amutoon kenn ku ko taxaw am ñu ne foofu kiimtaan dafee am ndax yonent bi sallallahu alayhi bi mu waxee ne saxaaba yi sàppe leen ñu jullee ko bi ñu sàppee rek yàlla da ko indil koor bi ba ci kanamam mu taxaw di ko jullee ala kulli xaal bari na ay tawilaaj yu ci am ku kuy jullee ab néew nag ki koy jullee mooy ki néew bi dénkaane woon ne bu ma fi jógee na ma taxaw kooku moo gën a yeey ci jullee ko ki nga xam ne daal dafa yaakaaroon barkeem amoon ci moom yaakaar ngir ngëneelam ak tolluwaay bu mu toll ci digganteem ak boromam ba tax mu ne bu ma faatoo na ma na taxawu kooku moo gën a yey ci taxaw ko bu fa ku nekkut ñu xool jege ñaa liggéey nag koo ko gën a jege rek comme nañ ko waxee woon ca sang ga bu fekkee ñoom ñëpp dañoo wàccoo seen àq wala ñoom ñëpp ñu toog yam fi nga xam ne kii mën na ko jullee kii mën na ko jullee kii mën na koo jullee nañ xool rek ka ca gën kañ ca gën a séntu ci moom ngëneel kañ gën a séntu ci moom barke bu fekkee ñi ñuy jullee dañoo bare na imaam xool na féete ca ka ca gën teg ca ka ca gën jullee néew nag am na ay ponk am na ñeent wala boog juróomi ponk yoo xam ne mënuñ cee ñàkk boo mucc ci jullee gi rek day indi ay rëq-rëq bi ci njëkk mooy yéene booy jullee néew nag kenn du la sartal ne dangay xam ndax néew bi jiw góor la wala jigéen la déedéet boo ñëwoon fekk mu jullee néew xamoo ndax góor la wala jigéen la yow yée fas yéeneen rek jul fas yéeneen rek jullee ab néew maa ngi fas yéeneen jullee ab néew bu boobaa booy ñaan bu la neexee nga góoral bu la neexee nga jigéenal loolu kon du ci charte kon yéene ji mooy teewlu ne li ngay def nii jullee néew la rek loolu lañ ci jublu ñaareel bi mooy boo ko mënee nga taxaw nga taxaw jullee ko bañ a toog bu dee imaam bu dee jullee góor day taxaw fi tolloog ndigg li bu dee jigéen lay jullee mu taxaw fi tolloog euh, mbagg yi bu ko defee bopp bi féete ko ndeyjoor jullee néew dana am ñeenti kàbbar kàbbar bu ci ne dañuy wax ne day taxaw taxawaayu ràkk kàbbaru armal bi mooy kàbbar bu njëkk bi rek nga yëkkati sa loxo wax allahu akbar waaye yeneen kàbbar yépp da ngay wax allahu akbar du jar nga yëkkati sa loxo kàbbar yooyu nag ñaari njuumte dana ci am mooy léeg nit mën na cee yokk léeg nit mën na cee wàññi bu yokk amoon bu imaam jékki-jékki woon yokk ci kàbbar yi kàbbaru ñi juróomeel gis nañ ne kàbbar na ñeenti yoon jékki-jékki kàbbaraat kàbbaru juróomeel bi moo ko tey wala tey ko loolu bu ci sa yoon nekk fii lenn rek lañ lay digal mooy bu la neexee nga daal di sëlmal ca changé sa julli baax jullik imaam baax bu la neexoon tamit nga xaar imaam mu sëlmal nga sëlmal ànd ak moom kon yokk amul danger imaam saa yokkee ci julleeg néew bu ca yokkee benn kàbbar moom bu la neexee nga xaar ko ba mu sëlmal nga ànd ak moom sëlmal julli gi baax na bu la neexee nga sëlmal ca changé ñëpp koo sëlmal boobaay du tee julli gi baax na sag julli baax na jullik imaam baax na bu wàññee amee nag xëy na foofu la teqantal gi di am tuuti imaam bu wàññee benn kàbbar walla ñaar wàññi na daal dañu xool ndax moo ko tey wala teyu ko bu fekkee teyu ko dañ koy sàbbal dañ koy wax subhanallah bu dellusee daal di kàbbar kàbbarum ñeenteel sëlmal baax na julli gi baax na bu fekkente ne dañ koo wax ne ko subhanallah nag mu lànk bañ a dellusi yow mi nekkoon ci ginnaaw da ngay kàbbar rek da ngay kàbbar sa kàbbarub ñeenteel daal di sëlmal bu ko defee fii nag am ak wuute am ñu ne julli gi baax na am ñu ne julli gi baaxut ndax ginnaaw julli gi imaam baaxut rek julli gi maamum ñu du mën a jaar du mën a baax fu ñu nee julli gi baaxut mooy kon dañ koy julliwaat dañ koy julleewaat bu fekkee suulaguñ ko buñ ko xasee deñ denc ba noppi nag du jar ñu koy baamuwaat bu fekkee imaam daa wàññi benn kàbbar ta tey ko dañoo jékki-jékki mu kàbbar ñetti kàbbar ñu koy fette su di ko sàbbaal mu lànk ni maa ko tey def ñett boobaa dañ naan nañ xool ndax lim def nii am na fu mu ko teg wala amut fu mu ko teg bu fekkee am na fu ko teg ñu ne leen yéen ñi ñi toppoon ci ginnaawam kàbbar leen kàbbarum ñeenteel daal di sëlmal julli gi baax bu fekkee amut fu mu ko teg nag ñu ne yéen ñu ne leen yéen ñëpp seen julli yàqu na ndax kii leen doon jiite ak julleem baaxut te ak julleem bu baaxut rek jullit maamam ñu du mën a baax ñeenteelu ponk bi mooy ñaanal néew bi mooy kàbbar boo kàbbar rek da ngay ñaan ñaan gi nag loo mën a ñaan rek baax na na nekk ak njëggal ak yërmaane ak tin ak yu demee noonu rek moo tax dañuy wax ne julleek néew goo fekkee boo doon wax allahumma xfir lahu warxamhu allahumma xfir lahu warxamhu baax na waaye nag dañoo wax ne imam malik ñaan gi mu gën a taamu mooy ñaanuk abu hurayra gi nga xam ne nii la tëdde ma gannaaw boo jullee ci boo taggee suñu borom alhamdulillahi waxda wasalaatu wasalaamu ala rasulillah nga jàng ñaan gi allahuma innahu abduka wa bni abdika wa bni wa bnu amatik kaana yashhadu an laa ilaha illa ant waxdaka laa sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anta aalamu bih allahuma in kaana muxsinan fa zid fi ixsaanihi wa in kaana musian fa tajaawaz an sayiatihi allahuma laa taxrimna ajrahu wala taftinnaa baada bu dee jigéen nga jigéenal ko allahuma inna amatuka wa bintu abdika wala wabnatu abdika wa bintu amatika wala wabnatu amatika boo demee ba ci kaana nga ne kaanat boo demee ba ci ir yi nga xam ne dañ koo góoral fii ixsaanihi nga ne fii ixsaaniha eh, an sayiaatihi nga ne an sayiaatiha in kaana nga ne in kaanat wa hakaza bu dee xale bu góor am na ñaan guñ ci gën a taamu allahuma innahu abduka wa ibnu abdika anta xalaqtahu wa razaqtahu wa anta amattahu wa anta tuxiihi ila axiri kon bu dee ñaar lay jullee day ñaaral day tasniya waaw fépp fu waroon a nekk benn da koy ñaaral ci arab bu dee mbooloo da koy def mbooloo bu dee ay góor ak jigéen mu notal góor ci jigéen bi ci mujj ci ponk yi mooy sëlmal gi sëlmal gi nag moom imaam day wax asalaamaaleykum ki sës ci moom dégg ko boo defee maamum yi moom seenug asalaamaaleykum ñoom ñëpp dañ koy wax ndànk ku ñëw fekk ñuy jullee ab néew mooy mas masbuuq lan mooy ab àtteem dañuy bëgg boo ñëwee fekk ngay julli ñuy jullee ab néew bul ñëw rek kàbbar waaye da ngay xaar ba imaam kàbbaraat ba nga déggaat maamum yi di kàbbar nga kàbbar léegi boo boo noppee kon danañ la rawee dara danañ la rawee benn kàbbar boo fekkut wala ñaar wala ñett da ngay bàyyi ñoom ba ñu sëlmal nga fay lañ la rawee kàbbar boo kàbbar nag taxaw ñaan bu fekkee néew baa ngi tege bu fekkee dañu dañu ñoom dañoo dañoo sëlmal rek yóbbaale néew bi nga nga toftale kàbbar yi allahu akbar allahu akbar allahu akbar kenn niñ la rawee daal di sëlmal dem sa yoon loolu mooy àtte kii nga xam ne dañ koo dafa fekk ñu jullee am néew am na nag yoo xam ne dañ koy tere ci jullee ci jullee gi mooy nga ñëw fekke am néew jullee ko nga toog ba yàlla xiir la nga dem sa yoon te jullee guñ ko loolu lañ koy tere ndax loolu day mel ne xeetu sabotage la loolu lañ koy tere ni ngi noonu bi ñu ko jullee ba noppi denc guñ ko ngay dem te amoo ci ndigal loolu lañ koy tere wala bokk mu leer na la ñii seen waajtaay yu yeggut bu yàggee ba mu ëpp baax na mën ngaa dem boo ci amee ndigal it mën ngaa dem jël ab néew di ko dugal ci jàkka loolu dañ koy tere ndax dara mën naa génn ci moom loo xam ne day taqal jàkka ji di ko jullee ci biir jàkka yit bu fekkente ne am nañ pexe gënut di ko jullee di ko julleewaat bu fekkee eh, dañ ko jullee woon ci mbooloo ba noppi di ko julleewaat ci mbooloo dañ koy tere waaye fekkee dañ kenn ko jullee woon nag mënees na ko waat ci mbooloo sib nañ eh, waaju baax di jullee koo xam ne day def bidaa wala muy def ay bàkkaar yu mag wala koo xam ne dañ ko rey ci géttan gunge gi ma tënk rek bokk na ci liñ ci sopp mooy booy gunge am néew nga dox bañ a war boo ci amul ngànt ci dem gi dikk gi moom la neex mën ngaa def bu la neex mën ngaa dox mën ngaa mën ngaa war bëgg nañ it képp kuy gunge am néew nga jiitu néew bi topp sa ginnaaw nga xaw a eh, yokk say jéego tuuti waaye nag du jar daw mbaa ngay ñukk bu dee da ngaa war nga nga topp ci ginnaaw néew bi topp ci ka nit ñi nekk ci kanam nit ñi dox bu dee jigéen la guy gunge moom mu nekk ci gannaaw góor ñi bu dee jigéen lañu gunge it sopp nañ ci ñu def lu mel ni ab tànt wala dara loo xam ne dañ koy teg ci kaw jaat gi ngir mu gën a am sutura sib nañ kii gunge am néew muy topp ci ginnaawam di sikkar mbaa muy jéggulu baa muy jàng ak lu mën a jàng rek loolu dañ koy sib ndax dañuy ba dañuy wax ne fii barab bu waaru la barab bu setanta la waaye du barab bu yëkkati kàddu di toppee am néew sawara wala cuuraay wala yooyu yëpp dañ koy sib bu la ab néew rombee fekk la nga toog nga jug di taxaw loolu amoon na bu njëkk waaye xokk man suux la léegi dañ ko nasaxal jëratu ko di gàddu ab néew fekk yoroo njàpp ndax day tax buñ buñ buñ taxawalee doo mën a julli lu may ba nga koy gàddu leer nañ la boo demee danga ko mën a teg dem waaj ñu soog koo jullee dagan na ci màggat moo xam ne kenn amatul ci moom soxla mu bokk ci ñuy gunge am néew ak xale bu jigéen boo xam ne Euh, defar na boppam ba du jeqi fitna bu fekkente ne kañuy kañuy rob day mbokkam mu ko jege lool ku sori ci xolam loolu dagan na dagan na it ci kii gunge am néew mu njëkk mu njëkk fa néew ba waa njëkk fañ koy suul loolu loolu dagan na waaye njëkk fañ koy jullee moom dañ koo si gënut ma dañuy bëgg bu ñu koy jullee nga am néeg bañ teg néew bi nga ñëw soog a toog waaye fañ koy suul mën nga koo njëkk ca barab ya mën ngaa dem sax dem toog te fekk moom ña ko gàddu euh, tegaguñ ko ci kaw suuf bu dee rob bi ak suul gi pax mi nañ ko gas rekk ba nga xam ne bu xet doon am du egsi ci nit ñi ak it bu dee rab wuy lore du mën a dem ba àgg fa loolu rek lañ ci lañ ciy xool kon rab woom day màtte baa muy lore bu mën a am accès ba dugg ci pax mi waaye xet bu bu doon am bu mu mën a egsi ci nit ñi ñaar yooyu boo amee rek baax na am na lu ñuy wax laxd yaakaar naa fii xam nañ ko bu baax a baax ak lu ñuy wax chaq laxd bu mënee am moo gën bu fekkente ne suuf si dëgër na bu munta am nag bu fekkee suuf si dafa nooy ñu def chaq bëgg nañ kuy denc ci sa néew nga taamu fa boroom xam-xam yi nekk fa wali nekk fa gaa yu baax yi nekk ndax kat humul qawmu la yashqa bihi bihim jalisuhum ñooy ñu baax ñi nga xam ne boo boo leen fréquenté doo am loola naqari sa bopp yonent bi sallallahu alayhi ni ngeen ko xamee daana wax ne jibril dama daan dénk ab dëkkanoo ba ma yaakaar ne dëkkanoo damay doon loolu tax boroom xam-xam ñi ne xool nit ku baax nga fexe bañ denc la ci wetam dana dalal xel dana tax yaakaar gën a am bu loolu amul nag dañu sopp nit ki ñu denc ko ci ay mbokkam mbokkam yi ko gën a jege kon bu ñaar yëpp ma ne am ñu denc la ci say mbokk ba noppi nga jegewaale ay kilifa fa biha wa ni'ma loolu moo gën bu loolu mënta am nag ñu denc la ci say mbokk ñii rob ñii ñi lay ñii dugal ci bàmmeel it bëgg nañ lool ñu bokk ci ñu baax ñi ñiñ gën a taamu bu ko defee ay mbokkam nañ ko nañ ko dugal ci bàmmeel lañ buñ ko dugalee nañ nañ ko tëdd wetu ndeyjoor gi bu ko defee xar kanam gi daal di jublu xibla ki koy tëral it na wax bismillah wa ala sunnati rasulillah buñ noppee daal di sakkaat pax mi daat koy daat ci mm, def ay xob daat ci wis ndox daat koy ñaanal jéggalul ko ñu bare sañ nañoo dajale ay néew yu bari it dugal leen ci benn benn bàmmeel bu fekkente ne eh, darura moo ko laaj sañ nañoo suul guddi rob guddi loolu dagaan na ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam guddi lañ ko rob Abu Bakar noonu Ali guddi la roboon Fatima suñ kilifa yu bare bare gis ngeen ne guddi lañ leen di waajal toxal am néew jële ko ci barab bu sori indi ko ci barab bu jege bu fekkee dañoo yaakaar ci barab bi ñu koy indi barke wala ñu xam ne bu ñu ko fi indee mooy tax ay mbokkam gën koo mën a saytu gën koo mën a seeti gën koo mën a nemmi loolu dagan na waaye di tabax ay bàmmeel ak di ko laso wala di ca def ban wala di ko taaral bu fekkee pookaréwu lañ ci jugee lañ ca jublu araam na bu fekkee jubluwuñ ko ca araamul di dencaale ab néew eh, kayit wu am sikar wala ñaan wala wala buñ bind alxuraan wala yu mel noonu loolu koy bañ dafay araam loolu doyee dal mbind ma la te xam nañ ne ay sax mën na caa mujj wala yu mel noonu sulli bàmmeel boo xam ne ba tey kañ fa denc eh, suuf lekk goo loolu dañ koy tere bu ko suuf lekkee nag dagan na eh, ñu xam ne kon loolu ay mbir la yoo xam ne dafa aju ci waajal ku faatu xam naa kon damay tënk foofu rek desoon na dañu eh, yenn ay yeneen yoo xam ne dañ koo sopp desoon na lu aju ci wàllu siyaare ay bàmmeel ak teggin yi ci am waaye la ci ëpp solo rek mooy ku siyaare ay bàmmeel nga teewlu bañ faa euh, wax waxi àdduna bañ faa reetaan bañ jël suuf di ko cibbu di ca ñaan wala ngay jeq di suulaat waaye tamit euh, boo demee nga ñaanal ña fa nekk nuyu leen teewlu bu baax a baax xam ne fii nga ñëw ëllëg yow yaa fay mujj wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jërëjëf euh, sëriñ Abdou bu Bousso ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne moom nga ñu baaxee tey te mu aju ci waajal koo xamante ne dafay bàyyi ko mu tàmbulee ci ba muy waaja buy ji boromam ba ni mu ko wujjee ba ni ñu koy waajalee ba ni ñu koy jébbale boromam ak ni ñu koy ñaanale ak ni ñuy siyaaree xab yu yëpp rek te mu nekk mu nekk waxtaan woo xamante ne waxtaan wu matale la. xam naa ne ngir njëkkante waxtu wi rek dañuy jox kàddu gi sëriñ maxtar Kan sëriñ maxtar Kan di kenn ci waa waa muxaddamatul xidma ñi nga xamante ne ñoom lañ dénk saytu wàllu jumaa ji ak saytu wàllu bërëb ya bërëb yi nga xamante ne moom la ñuy sutaale ñi fi jóge moom tamit mu am wàllu gu am solo goo xamante ne yore na ko foofu noonu Euh, bokk ci ñi nga xamante ne ñoo yore wàllu organisation ci biir mu xaddamatul xidma waaye nag ci organisation boobu noonu mu yore ci pàcc gu am solo tamit teg ci muy saytu béréb yi nga xamante ne moom la ñuy susuraale ñi nga xamante ne ñoo ci bàyyi ko kon dañuy jox kàddu gi rek sëriñ euh, Maxtaar Kan xamaa ne euh, du ñu comme waxtu bi dañoo xaw a jat moo tax du ñu sori ci di wax am njàng xeet yu mel noonu waaye ñu xam ne rek fi ñu baaxoo jaarale doomi soxna rek foofu lañ ko jaarale muy jàngal ko alxuraanul karim mu jàng xam-xam nekk ab jàngalekat tamit ndax ab ndax fii ne jàngalekat la ci école yi nga xamante ne moom la Serigne Cheikh Mbacke sanc fii ci Touba ci tokkor bi moom jàngalekat la ci foofu noonu waaye nag nekk membre ci mu xaddamatul xidma di fa taxawaaye taxawee taxawaay bu am solo kon ñu jox ko kàddu gi bismillahi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi nuyu jotaay bépp di kital kilifa yu baax yi di am mbégte lool ci teewaay bi ak fekk gi waaye di dog ngànt nag bu baax a baax ci li nga xam ne nii dañ ma koo sas te muy lu xaw a jafe ci man ndax man bu ko gaa yi nekk ay muhadiraan di wër di conférence waaye xañ na alwafa dafa bokk ci ab liggéey buñ séq ak ñoom buñ sàkkoo dara rek day jaar ñu taxaw ca ndax ñooy ñum ñooy ñoom du ma ndax suñu Abdou wax li lépp tatbiix baa war a wax ci terrain bi waaye xaw xaw naa tamit jot dinaa wax rek li ëpp solo tey di xew léegi nii ci diggante Baqiya ak yeneen dëkk yi ñu xam ne baqiyan ah, wala armeel yi Serigne Saliou Mbacké 14 fe avril 2007 bi ñu koy jox da ko boole woon ak orientation yu leer nañ ñi daa waxoon ne daa dégg ñu ne ko biir armeel yi kay njëkk yi boo fi indee ab way dawlu mën nga koo denc boo fayee xaalis rek amul benn topp topp ci war ak noo faatoo nag mun suñu afiya damaa bëgg ñu taxaw ci loolu ba saafara ko ngir ba loolu du am balam ñu toppatoo ko bin ubbee morgue bi mu jox ñu liggéey ñu commencé ko di ko def ci liggéey boo xam ne nii ni mu ko waxee ci départ ba fin damay commencé rek bu néew bu ñëwee ci armeel yi ci tënk foofu ñu ngi fay xaar ñett ba ñeent dana fi xaar ki nga xam ne nii dafa ñëw ci anaam goo xam ne nii mat na mooy waa këram toppatoo nañ ko ba bu ñëwee rek jublu sang ci des ak koo xam ne nii waa këram toppatoo wuñ ko wala koo xam ne dañ ci am xel yaar ñun danaan bu ñëwee na waa ji moraaxi bi na dem xooli néew bi na ko xool def yenn test yoo xam ne danga koy jàngal ba ca gën yomb mooy ab seetu rek ab seetu gën a yomb lépp nga teg seetu ci kanam gimiñ gi rek deux secondes rek dana am ay gémeer yu des biir nga xam ne kii faatuwut wala mu ñëw indi kayit wuy firndeel ne faatu na wala boog ñu ne moom kat daan daan daa ne daan fatt nga xam ne boo defee yeen bu bësee bakkan bi mën ngaa génnee li ko fattoon mu génn yooyu ñu def la ñoo xam ne li njëkk def ci ci néew bi moo tax léegi doon néew rek yóbbu morgue bu direct waaye daal njëkk ci moom mooy ijraa yi njëkk ci moom ba xam ba xam kii faatu wala faatuwul léegi bu faatoo nag ci ñaar anam benn mu ñëw indi kayit wala mu ñëw ñàkk indi kayit te moo ëpp nag léegi nii état bi dafa saxal dara mooy bu njëkkoon boo indee misaal Daaru Muxti nga jóge jëm si tuubaa boo jaaree ci gouverneur bi jox la benn kayit bu lay wane ne mën ngaa yóbbu sam néew tuubaa ñoom danañ jaay ci mairie Daaru Musi jël beneen këyit indi tubaa mu ñaari këyit benn këyit bi moom mairie bi waru koon joxe ndax du wàllam ndax mairie Touba moo am droit ci joxe ab inimation waaye du mairie Daaru bu njëkk doon a am nag bu ñëwee dañuy baase ci këyit boobu la ñuy baase wu xam ne kon kii kat faatu na am na këyit ba des nag ku ñaaw njort ci moom mën naa am këyit yëpp. waaye bu ñëwee mën naa am ak néggandiku kon am nga kayit bi boo ñëwee da koy jébbale boo ko jébbalee ñu jox benn questionnaire booy rempli ci li nga xamee heure beeg fi nga koy denceeg yooyu yëpp ci lay ci lay duggaale ci biir bu fekkee ko ko ami kayit la boomul kayit nag foofu moo jafe-jafe nag ndaxte léegi mënuñoo enregistré koo xam ne nii amul kayit moo tax ñu bari dañ fay yàggee lu mel noonu ba day mujj dellu seen dëkk wala fan dëkkoon wuti kayit baa ñu am ku leen témoin ñu suul ko ñu wuti kayit loolu mooy li ëpp so li ëpp luy xaw ci ci morgo bi ci ay jafe-jafe kayit la topp mooy léeg-léeg nit nañ ñëw nag indaale aw mel ak am da ay mbokkam di ko nëbbu andi ñu kayit dafa dee ci naturel la lépp mat na defar nañ ko indi ko nga xam ne yow ci sànkat bi ndax xam nga ne sànkat da leen formé ci année formation boo xam ne nii ci wàllu diine ni kii suñu waxee léegi nii ban maîtriser ko waaye nag ci problème médecine nag ban xàmme yooyu ndax ansela ku xaru ku ne rek boo xoolee day am taas ku xaru ku ne boo ko tiimee di ko sang rek da gis ne am na loxo yi jàpp na ci baat bi kooku nag boo amee këyit du problème ba mu këyit nag da ngay delloo liggéey ba autorité yi xam ne ñoo yor loolu ñu saytu ko léeg-léeg nit ñëw nag indi melokaan woo xam ne nii bu ñëwee day nëbbu li ko dal waaye questionnaire bi ngay tontu nag boo fekkee am na ay nju moo lay feeñal ndax bu nee daa dafa dafa faatu fekk ñu gis na ñun dafa am ay tâches yoo xam ne ni leerut kon ñu dañuy jébbal bu fekkee ne xool na tamit ne dañ koy jiiñ dara ay ñaaw ñoo ñaaw ci moom dañ koy delloo loolu da nga koo da nga koo teg muy xaaral wax moom. léegi tamit nga andi fa nga andi néew suñu waxee léegi nii war koo sang ragal ko ragal ko moo tax ñun sànqal dafa nekk tamit dañ leen ci su ngànt amee rek ci yow amoo koo sang rek ñoom ñu sangal sam néew waajal la ko ci wàccaay woo xam ne nii day dëppoo ak ni ko charia santaane dëppoo ak taalibe dëppoo ak bëggu sëñ bi ci ci dëkk ba loolu mooy li ñuy dox foofu. léegi nag mooy tax bu chaque année da ngay mën a xam ne Touba wala Baqiya recevoir na ci ay waydawlu dawlu nangam sangam at sàngam nangam ci góor ci jigéen ñi indi bakkan ñi indi bakkan ku ne la faat da nga koy mën am an bu ne. lu ko may mooy tonti nga tontu ci biir liggéey bi ci biir laaj yi moo la koy may lan mooy jafe-jafe yi nag jafe-jafe yi bi ci njëkk mooy jafe-jafe kayit ab néew ñëw. amul benn këyit bu ñu ko mën a xàmmee te ñu ànd ak moom tamit kenn jëlu engagement dafay ñëwoon doon liggéey si fa xamuñu ko te amul këyit kooku moom da ngay jébbal liggéey bi rek police ñu def seen enquête ba pël ko jox lu ndigal nga denc loolu mooy mooy gaar ci ëpp ci jafe-jafe yi wala boog sab néew ñëwee noo xam ne da koy nëbbu danga koy nëbbu benn mu xaru wala mu rey boppam ci jam paak wala mel noonu nga koy nëbbu yooyu yëpp ci sankat bi ci la ni jéem a ligganteeloo lépp ba mu leer ci yow kon kiy ñëw foofu war naa bàyyi xel ne buy ñëw yin koy laaj saa bu ñu koy benn rek mën na faa yeexale néew ba am na benn jafe mooy tamit muy tànn fi may denc ja armeel yi dañ ko dagg ay parcelle boo ñëwee ci li nga rempli bu la neex nga ne maa ngi jëm daaru moxti fi njëx waa daaru moxti laa jëm waa ki lay waajal day bàyyi xel na foofu la jëm ndaxte loolu tam da cee bokk ci liggéey bi ñu ko ne fa nga jëm yomb la ko bu fekkee feesut bu feesee nag danaan la jëmal murit ga xam ne murit gi noonu ñoo ngi ci parcelle numéro F day xaar at mu ne dix mille personnes ndax moo ëpp lu muy recevoir ci Bakhia moo tax dañuy bàyyi xel lu mel noonu ñëpp ñoo xam ne dafaa ñëw di jël ci loo xam ne nii dafa jege liggéey bi da leen koy bàyyee ñoom. léegi nag bu fekkee ne nag ñoom ñi indi néew bi ki koy déclaré dafa wax loo xam ne dafa wuute ak liñ santaane ci mbir mi nag loolu dañ koy dellu ba police ba léegi rek. ndax dul may waa ji muy def loo xam ne nii day wuteeg sart yi ñu tëral ci biir liggéeykaay bi wala sart yi saa boo ko boo ko jéggee dal lay delloo ci liggéey bi ba tey am na jafe-jafe ay sankat ay sankat surtout jigéen dafay manqué lool léegi nu nga tànne mooy dafay benn dafay benn communiqué ba ñu am ay sankat dañ leen koy teqantalal jàngal leen ko nu nuy sange nu nuy sange bu fekkee dana am problème mu gaskat bu amee ñu bëgg liggéey ba tamit ñu jàngal leen ñaari façon gas yëpp kadaalika bu fekkee am naan problème ñawkat bu amee ñawkat bees ñu jàngal leen nu ñuy ñawele ak mbalaan ba ñoom ñëpp ñu mën koo xam def ko ni mu ware bu nekk jullikaay tamit kasaal jullikaay bi ñu julee nii tamit kasaalika dañ ko waajal teg fa koo xam ne nii axta yi nga xam ne mooy am ci ci julleeb néew ci te tegeen waag ki war a jiitoog loolu bu gaaree mën ne intervenir gaaw ci jubbanti gi mu jaar yoon kasaal ci suul gi am na ko nekk ci biir koo xam ne ni muna ab munasim la boo xam ne ni liggéeyam mooy xool ndax waylawul bi ñuy denc anam yi ni waxoon ci denc bi yëpp mat na su matul moom day intervenir direct na leen kii kat daa am nangal manqué def leen ko dana jar sax mu téye néew ba woote ñu ñëw pour corriger loolu ndax koo xam ne nii li ko si àdduna bëriwut duñ bàyyi yenn artaay yi du topp te boobaa day am loo xam ne nii day gàll ci ñun ñëpp loolu tamit lu ñuy nemmee ci biir Bakhina ak li ko wër bu nee lu jëm ci wàllu wàllu kaaraange nañoo dénk ñun ñu aar armeel yi ci biir ak ci biti moo tax heure denc yëpp dañ fay teg équipe boo xam ne ni quinze personnes yoo xam ne ñooy yor liggéeyu Bakhya di xëy si sept heures di wàcc sept nga xam problème bu am ñoom question yi dara ma ngaaw liggante mbir mi balaa jot ci ak kilifa yi ñooñu tamit ñoom moo ñoo gën a ñoo liggéey ba ndax lii am ci ay erreur yëpp ak ñumte ñoo ko njëkk a yëkk def ci seen kéemtalaay kattan soog koo nag andil bureau bi wala andi ko munasax bi. mu jóg na ngir contre loolu pour leeral ko Bakhia ah, cinq hectares la waaye fi toll nii jàpp nañ ne la fa nekk ci aw nit sëriñ si waroon gën a bàyyiwaat xel ay barab yu fa nekk ndax fi nii rek mujjee xool logiciel bi ak seen ci 98 mille 365 yu fa nekk nii ci mois de 2022 bi nga xam ne kon baral boo xam ne nii. quarante cinq hectares la yoo xam ne nii buñ ko conservé ni mu war ni war ni mu mën naa gaaw a manqué te nag armeel daa bokk ci dund gi nga xam ne nii ay nit mënu koo ñàkk moo tax daayira bi fekkoon na ci armeel yi ñu xamutoon nu ñuy toppatoo am néew ñu gàgganti leen fekkoon na tamit ñoo xam ne nii xaalis seen jiital ci toppatoo néew waaye loolu lépp dañ ko corriger ba mbir mi nekk ci anam goo xam ne nii jéggi ndayoo maa ngi gàttal foofu ndaxte waxtu bi jege na te liggéey bi tamit yaatu na wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa jërëjëf euh, sëriñ Makhtar Kane ci leeral yu am solo yi nga xamante ne andi nga ko ci ni ni nga xam ne noonu la daairatu muxaddamatul xidma di saytoo béréb yi nga xamante ne moom la ñuy suturaale ñi fi bàyyi ko te mu nekk say saytuwin bu am solo ndax xam nañ ne bu fekkonte ne saytu googu amu fa euh, ay njuumte yu baree baree bari dana am ci ni nga xam ne noonu lañuy ñuy suturaale xaj na ñi fi jóge waaye nag am na yeneen tamit yoo xamante ne war na ci mën a am yoo xamante ne du nekk loo xamante ne lu ñuy gërëm loola kenn ku nekk xam na taxawaay bi nga xamante ne moom la fi moom la ci daayira bi am ci ay xew-xew yu fi amoon yoo xamante ne nañ ko lijjantee mu nekk lijjantiin wu am solo wu rafet te dara yàquwut waaye nag dara génn ci tamit cadre charia loolu yaakaar na ne liggéey bu am solo la liggéey la boo xamante ne ñëpp war nañ cee bàyyi xel xam naa ne rek euh, ñu bàyyi xel ci lii nga xam ne moom la junj léegi ndax béréb boo xamante ne ña fay ñëw di fi indi seeni ñu wàññiku bari nañ lool xam naa ne euh, am na ci laaj yi ndax am na ay laaj yoo xamante ne euh, rot na fi ci mbokk yi nga xamante ne ñoo fi ñoo teewal waxtaan wi xam ne dana ci ñëw junj na ko léegi ne war nañoo bàyyi xel beneen béréb boo xamante ne danañ ko fàggu ngir fa man man faa suturaal ñii nga xamante ne ñoo fi bàyyi ko ndax joxe na ab lim léegi muy quatre-vingt-dix-huit cent soixante-cinq loolu nag nekkul li mu daw te bis bu nekk day gën a yokku te béréb ba moom yokkuwut kon nag war nañoo bàyyi xel loolu kon xam naa ne euh, dañuy sant rek waa mu Muxaddamatul ma ci turu ñi nga xamante ne ñoom ñoo bàyyi ko Tuubaa tey ñëw bokk ak ñun jataay bi ñu mën cee ràññee sëriñ Abdul Ahad Bousso di ki nga xamante ne moom moo jiite laaj na saxaafiya di commission culturelle ci daayira bi ànd ak sëriñ Jiri Ñang moom tamit di membre ci commission sociale waaye nag ànd ak suñ ñaari mbokk yi nga xamante ne tey ñooñu baaxe bind yu am solo yii nii muy sëriñ Abdou Khadir Bousso ak sëriñ Makhtar kan sëriñ Makhtar Kane bokk ci commission organisation waaye nag ñu ànd ak sëriñ euh, sëriñ Bousso Mbacke ak bàyyi sëriñ Bousso tamit ak sëriñ Mbacke ñas ñoom ñëpp ñu ànd jóge Touba euh, ñëw bokk ñu ñun bi tey ñu ñaan yàlla euh, yàggal taxawaay bi te fay leen ci coono yi nga xamante ni ñi ngi koy daj ngir liggéeyal sëriñ bi waaye nag ngir liggéeyal xeet yi loolu yàlla nañ ci yàlla fay. fay goo xamante ne dana kawe seen njort xam naa ne am na ay laaj yoo xamante ne aju na fi rek euh, ci waxtaan wi xam naa ne dañuy jox kàddu gi sëriñ euh, sëriñ Xaadim juuf su ko defee mu tànn lenn ci laaj yi rek ndax xam naa ne lépp du xaj ci waxtu wi sax nag xam naa ne laaj bi bi ma teewlu ni rek moom mooy dafa am ko doon laaj xam naa ne sëñ Maxtaar Kan lañ koy jëme mu ne euh, dafa bëggoon a xam baqiyan maanaam en moyenne ñaata nit lañ fay denc par bis ak ndax ñoom def nañ ay statistique maanaam def nañ ay calcul ci euh, la nga xamante ne moo fa des ci suuf ba xam ñaata nit la war a mën a jël su ko dee ñu mën a bàyyi xel loolu ngir mën a sa sa fàggu yeneen béréb yoo xamante ne dana ko mën a sutaal ñu bàyyi ko. maa ngi sant bu baax ci question boobu xam naa nag daal delloo ak sëñ bi jox naa sëñ bi marja bi jox naa ko benn document boo xam ne nii moo mujj ci liggéey deux mille vingt deux sëñ bi Bakhia mën naa recevoir par jour vingt quatre alal aqal vingt quatre bi kafiir trente cinq cent quatre-vingts parcelles moo fa nekk des na ay parcelles te fi ñu toon nii ñoo ci A B C D e. li mu ñëpp bokk li ñëpp bokk mooy murid gi moom des na li am jafe-jafe mooy nag kër karaar yi loolu nag ci daaru moom yu naa leeral ndax xam ngeen ne ndigal moo la jox yenn yi ba doo mën tarxis def leneen waaye kër karaar yooyu ñu ngi koy topp par benn benn te jàpp naa tamit ne saa bu accès ko jëfandikoo des ko jëfandikoo kon li am solo mooy man ngaa am 24 ci alal aqal 34 bi kasiir tey parcelle tamit yaa ngi ci 180 des na te ba léegi nii am na lu laal bu ci baxee kon man naa man te ñoo ngi ci 2023 te 2014 la nga ko sañ 11 100 la nga ko sañ 2014 kon mën naa ne am am nañ ci ay 9 9 ans. kon jombut jombut ñu ngi xalaat ñun yeneen xalaat yoo xam ne moo gën a xóot ba am parce que yoo xam ne nii dana ci yokk wax naa ko léegi nii sëriñ sépp war a xalaat ci lu mel noonu amaat ndax ñëpp koy soxla. jërëjëf euh, salaamaaleykum wa rahmatullah yaakaar naa waxtaan wi am na solo sëñ bi kii nee na day laaj ci lislaam naka la jigéen war a muuroo gannaaw boo xam ne borom këram wàcc na liggéey ndax dafa bari ay aada yoo xam ne. dañ koy seetlu ci jigéen bu dee muuru ci biir réew mi yoo xam ne dañ ko koy digal. ok jërëjëf euh, ñu ngi nuyoowaat bu baax a baax di ziar waaw xam naa de euh, daw moom euh, ci lislaam la bokk ak façon yam am yëpp mën na nekk idday ku ku ñu fase bari na ay façon lool day dépendre rek ci ban xeetu fase lañ ko fase mën na nekk idday ku faatu idday ku faatu nag mooy ànd ak ixdaat mooy ànd ak tenju tenju daal ci lislaam ci gàttal mooy sori rek lépp luy wane ab taar waaw lépp luy wane ab taar rekk sori ko ba idda ya jeex loolu mooy tenju yeneen yi ci am yépp nag ci niñ ko xamee ci wolof yi ay aada aada nag ci lislaam mënees na koo nangu ci bu dëppook sharia fekkee mabut charia waaye gis nañ ci ay aada yoo xam ne daanaka boo ko mën layal wala boo boo ko doon jéem a jàngat da naan ay xërëm la gën a jege ci diine kon bañ a taaru sori lépp loo xam ne ab taar la bañ a sori bañ a sori sa dëkkuwaay euh, toog ci benn barab saxoo ñaan ak di fàttaliku sa boroom di fàttaliku sa boroom kër bi nga xam ne moom la la yàlla boole loon loolu rek mooy tenju waaw jërëjëf sëñ Abdul Xaadir yaakaar naa ne kii moom laajam bi mën naa am du fi mën a yegg waaye ñu laaj ko rek mooy nee na ndax jullik néew julleek néew dafa am ay farata ak ay sunna bu amee yan la ki nga xam ne itam dafa ñëw fekk ñuy jullee itam lan la war a wax waaw loolu yaakaar naa waxoon nañ ko ci waxtaan wi léegi ñoom boroom xam-xam yi jullee néew ay ponk lañ koy wutal ay arkaan arkaan yi mooy yi nga ci gis mu fes ci yëpp rek yéene ji moo ci jiitu euh, ñeenti kàbbar yi yi ngay def ak euh, ñaan gi ak taxaw gi ngay taxaw ba jullee néew ak sëlmal ji juróom yooyu yëpp ay ponk la li ngay ñaan nag waxoon nañ léegi ci biir waxtaan wi moom it ne amut ci lu ñu lay tënk boo ñëwoon di ñaan suñu borom jéggal ko yërëm ko allahuma xfir lahu warxamhu bu dee góor wala allahuma xfir laha warxamha baax na waaye wax nañ fi léegi ne bu dee ci masab imam malik ñaan ngi ñu gën a taamu gën koo rafet lu mooy ñaanu ko abu hurayra rek ñaan googu it pour ci gàttal rek am naa yaakaar ne am na ci téere suñu son bu bi ku ca dem boo ko bëggee gis mën nga ko gis mën nga ko bind mën nga koo mokkal bu fekkente ne jàpp na ci yow bu jàpp ni ko ci yow it nga ñaanal ko suñu borom jéggal ko yërëm ko rek jërëjëf sëriñ Abdou Khadir Bousso jërëjëf sëriñ Mokhtar Kane ci waxtaan wu am solo bii nga xamante ne moom ngeen ñu baaxee tey xam naa ne waxtu yi moo xaw a xat rek waaye laaj yi moom bari woon na am na ay laaj yu fi des waaye nag waxtu yi dafa xaw a ñoo xaw a xaj xam naa ne ñu fàttali mbokk yi rek ne suba incha allah danañu fas yéene dalal sëriñ Abdourahim Lay mu fas yéene ñëw ci ak tayaaraat as siyaasiya al mawjuda muy doxalini politique yi am ci àdduna bu dee ginnaaw suba incha allah te mooy lii tëj ay bis gu njëkk gi sëriñ Bamba Dramé moom la ñuy fas yéene dalal ci taarixu binaa ituraas wa thaqafa al islaamiyya fi Sénégal marahil wa wa alam muy ndonal lislaam ci Sénégal ak naka la ko naka euh, ak euh, na ko ko mag ñi taxawe woon loolu incha allah moom la sëñ Bamba Dramé fas yéene ànd ak ñun ginnaaw suba incha allah kon ñu sant ñëpp rek asalaamaaleykum wa rahmatullah